en de la télévision euh, tey ñu ñëw fi nga xamante ni moo nekk diwaanu Sokone yéen sama diggante ak yéen am naa yaakaar ne kenn du ko natamle xam nañ bu baax a baax laa seq ak te bu ñu gisee tey li nga xamante ni moo nekk mbooloo mu am doole mi tey lan nga yëg sa xol. waa Ama balaa ñoo commencé ñu lay nuyu di sant di la gërëm ndax Ama yow ñëpp xam nañ suñu diggante ak yow. kon nag amuñ dara luñ lay wax lu jërë nga jëf yàgg sa waa ji nga àndal waaw mbooloo mi moom amuñ seen fay ndax woote ñu wuyu si la rek dafa neex dafa sedd suñ xol ndax sedd na guddi na waaye ñoom ñëpp a ngi ñëw toog ku nekk bàyyi li ngay def ñëw wuyu si ñu kon nag ñun gan gi daal amuñ dara lu ñuy wax lu dul di sant ñëpp di gërëm ñépp ko bis tey tey. waaw ça va kontaan rek comprendre rek. ndeysaan ñaan yàlla commencé ko si bisimilah rahmaani rahiim. égalee ko ci alhamdulilah rabbil alamin. sama yéen soo ko ñëpp dem tey ñun seen bis bi tey loo gisee loolu. waaw kontaan rek kontaan leen ñoom ñëpp sant leen waaw ñu kontaan bu baax dinaan yàlla ànd bi lool te barke sa kaala baax na de. <laughs> a naa la yow Mauritanie nga jógee yow. foo jógee. déedéet man Sokone fii laa rek. ko Sokone de. tey noo gisee bésu tey bii tey. waaw macha allah ko organisé bés moom macha allah réussir na quoi réussite totale. waaw yow de xanaa nga kontaan. gis bu gis dañ laa gëj a gis namoon la macha Ah, kontaan ma leen ne ci yow bu baax a baax di la ñaanal succès nag succès total yow da baax lu baax rek nga yow. léegi yéen a ma gën a baax. di nuyu sa caméra bi ma sa caméra maama bi gis a ne ma toog talkal wax ko mu bàyyi wax. dafa lakkal barke Rasulullah yaa jongoma. sa jongoma Sénégal yëpp a ngi koy wax. Hmm, merci beaucoup. est-ce que nangu a da ngaa jongoma. waaw nangu na kay. sacrifice baax na. merci. kan moo ko moom. Aliou Sarr. kan moo koy raay. Aliou Sarr. ah bon. waaw sa loxo kan lay raay. waay Samba yéen ko dégg ndox nee na ma Aliou Sarr mooy raay loxo ma sacrifice am lépp waaw tey ñu gis tey nga ñëw ci bés bu mag bi tey mu nekk nga xamante ni mooy nekk tànn beex bu gang gi ñoom Odette Sarr ay ay bébé ak Tata Mbaat ñëpp nga xamante ni ñëwoon bés bi tey bu nga ñëwee tey si bés bi tey lan nga sa xol. dama kontaan rek parce que ñoom tamit sama la ñoom ñëpp. waaw. sëñ bi da ngaa no da ngaa nobaate de. xamoo ci dara sax. tax nga jongo ma. Aliou moo tax ma jongo ma. Aliou moo tax nga jongo ma. ko tey yow. ah def nii rek si mu ñuul te ñuuloo ma si daaxal te yaa ngi ñuul kur macha allah. Ah. nga mel. bàyyi ma gën koo defar. noo gisee bés tey bi tey. kontaan rek parce que sama booy ñooy fii ci normal. tey ma gisee digg sànq nga dugg si kër bi def li ñëpp di wax li nga def yaa ko tey wala yaa ko jàng wala yaa ko wala da nga kaa aspiré comme si. non judduwaale la. waaw xanaa yow doo ko mooy sa baay. ah. ah doo ko faale mooy sa baay. waaw. yow biir. oui 100 pour cent pur et dur. fa lañ Maodo Dior Koumba Samba yaa jëloon dogal monsieur xanaa xam nga. tiit naa. loo gisee bés bu nga xamante ni tey moo nekk bés ñoom waa Gangi ñoom Ayou Bébé Odette Sarr waa suba ñëpp génn tey sa xol noo ko yëgee. dama kontaan trop ba ma yëgsee fii ba gis gars yi ak ñuy doxalee dama kontaan sama yaram dafa daw ak gars yi ñuy féetee yaa ngi koy féetee aussi. sa kàddu ku ko tuddee. Euh, tuddee naa leen ko.